wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wafi. Auudu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamun ala ibaadihi allasina stafa rabbi sarax li sadri sarxan bihi akunu misla albadri wajcal kalaami raasida wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyoo bu baax tey ziyaar ñëpp képp koo xam ne yaa ngi euh, topp waxtaan wi ak foo mën di nekk ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di jiital ci nuyoo bi alxalifa cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla euh, yàggal ko fi lool taxawu ko ba lépp lum naal ci liggéeyu maamam bu tedd bi mu euh, jëmmal ko incha allahu taala mbokk yi ni ñu ko baaxoo xamee tey jii ñoo ngi ànd ak yéen ci euh, MK TV mu ànd ceeg làmp Fall émission bi nga xam ne moom lañuy amal ñaar fukki fan ci weer wu nekk émission bi nag moo ngi tudd balluwaayu yoonu murit émission la boo xam ne dañu ci ànd ak ay boroomi xam-xam ci ay mawduwaat ci thème yu wuute kem ni tem yi dëppooweeg jamono yi tey jii nag ñu ànd ci ak boroom xam-xam koo xam ne ñépp ko xam siiw na lool ci yoon wi siiw na lool ci eh, biti it ngir tisaare liggéeyu Cheikhul Xadim bi moom nag muy sëriñ Abo Mbàkke Basiiru Moor ku nekk xam na eh, taxawaayam ci liggéey bi mu amee kenn la ci eh, membre Rawdu Rayaahiin kon loolu rek doy na ci ab xamle Maodo bi ñu ànd ak moom nag mooy méthode bi sëñ bi daan jëflanteeg ñu wuutee ak moom ci gisin ñu wuutee ak moom ci pas-pas kon tey Maodo boobu la ñu fas yéenee ànd ak moom incha allahu taala kon tënk na ko ci eh, ñeenti tomb bi ci njëkk mooy lan mooy sabab bi tax wuute yi am ñaareel bi mooy sallallahu alayhi nu mu daan jëflanteeg ñi nga xam ne gëmuñu woon yàlla yahudi yi ak nasaraan yi ak Seexul Xadiim naka la daan jëflanteeg noonam yi ak ñi nga xam ne ñooy jullit ñi mu tëjee ko ci ñu xam li ëpp ci li ñu boole ak li ñu euh, li nga xam ne moo ñu teqale kon bu ko defee ñu ànd ceeg euh, sëñ bi mu ñëw ci euh, thème bi ñu teewlu bu baax a baax ànd ak diglu kon ñu jox sëñ bi mu kii ci tem bi incha allah bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi na ko waxee ci tàmbali bi di ci jiiteel ki nga xam ne mooy kilifa ak yoon wi di sëriñ Muntaqa di ñaan son borom dolli ko jàmm dolli ko tawfiq di siyaare bokk yëpp di ko teg ci la xol sunu bokk yu baax yi nga xam ne ñooñu dalal fii ci biir jumaa ji di euh, daayira muqaddamatul xidma ñoo ngi koy teg ci loxol sëñ Abdou Lahad mi toog sañ Xasan ak bokk yépp ñu jottali nu ko ci bokk yëpp di rafetlu liggéey bi bu baax a baax a baax kon ni nga ko waxee mawdu bi nga xam ne moom nañuy indi tey muy boo am solo bu jamono laaj ci jamono yii réeroo bi xaw naa bari dàgg sant beeg ngàññante bi te ñëpp ñëpp bokk lenn loolu nag indi ci royukaay bi sunu royukaay muy Sëriñ Tuubaa nan la daa jëflanteeg yu mel noonu moom mu jële ko ca royukaay bu mag ba de yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa mel ne ku waxtaane niñ ko waxe man Cheikh al Xadim fi taamuli maa al ku ko waxtaane anam gi sëñ Tuubaa daa jëflanteeg ñi mu bokkalul gis-gis ni ko waxee léegi ku ko waxtaan rek waxtaane nga bennoog jullit ñi ndax dafa mel ne wuute yi lam waroon a jur mooy dafa waroon a jëme nit ñi ci jàppandal ci jàppandal fi ne biir jumaa ji boo fi nekkee li buntu yi bari yi buntu yu bari ak jàppandal la ndax dana tax wet goo féete boo bëggee génn mën a jaar ci bunt ba la gën a jege génn loolu la wuute yi waroon indi ci lislaam moo looloo tax wax ju siw jooju nga xam ne am na ñu ne xadis la am na ñu ne kenn ci taabi'un yi moo ko wax mun ixtilaafu ummati rahma loolu moo ko indi wute gi xeetam yi wuute tàmbale ca saxaaba ya kenn ku ne def sa ijtihaad ba na dara wuute yooyu yërmande rek la la war a jural xeet wi Sëñ Tuubaa nag moom dafa dafa dafa weesu sax mbokkoo mbokkoog jullit gi ñuy wax julit yi ay bokk lañ dafa mel ne moom dafa ñaan sax boroomam mu def jullit yëpp ñuy sunuy xarit loolu la wax danga def mboolem jullit yi ñuy sunuy xarit wajal jamia al muslimina turra lana xillaa fanuk fa durra dafe naa mbokk man diggante ay bokk mën naa am taxaasud mën am tanaasul waaye ay diggante xarit moom moom jàmm rek moo fay moo tax fanuk fa durra buñ doone ay xarit rek mën nañu mucc ci lor noonu lan moo sabab wuute yi doomu aadama yi wuute loolu dogalub yàlla la sunu borom ci bopp moo wax ci alquran ne walaw shaa rabbuka la jaala annaasa ummatan waxida wala yazaluuna muxtalifina illa man raxima rabbuka wa lidalika xalaqahum nee na yonent bi bu sooboon sa borom mu def nit ñépp ñuy wenn xeet maanaam qaadirun ala jaali nnaasi kullihim ummatan waxida min imaanin aw kufr bu ko neexoon mu boole nit ñëpp ñuy wenn xeet gëmandoo dara wala ñu weddendoo bu ko neexoon mu ne waaye du ñu dañ di wuute di wuute ci nii kudul ku ci yàlla génn ci ma dem ci loolu la leen bind lidalika yi am na ci borom xam-xam ñu ko delloo ci rahma bi mujj tudd waaye am na ñu ko delloo ci ixtilaaf bi itam muy wuute bi kon loolu moom jëfi jëfi sunu borom la moo dogal nit ñi wuute ci seeni pas-pas seeni diine seeni madahib seeni aara lépp daanaka ñu ñu wute ca moo tax dem na ba am na bana borom xam-xam yu ne nit ñi daanaka seen bopp yi jëm kaw seen tànk jëm suuf rek lañ lañ bokkule da ci des lépp daanaka dañ ko wute kon wuute ko dafa làmb léppi doomu adama lépp doomu adama sunu borom waxaat na ne lim ni mu doon ak kéemaan ni la wuutee nit ñi doon ak kéemaan wuutee seeni làmmeñ ak seeni couleur wa min ayaatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum inna fi dalika la ayatin lil alamin moo tax wuutee làmmeñ yi fi ne bu amoon ko ne ci biti gisoo ko bu waxee nga dégg kàddoom da nga mën a dal di xam góor la wala jigéen la da nga mën a daal di xam mag la wala gone la da nga mën a daal di xam sax ni diwa loolu lépp dina bokk ci kiimaani sunu borom couleur yi niñ wutee ñoom it hmm. ci biir nit ñu ñuul ñi sax da ci am ñu ñu ñu xees am ñu xeereer am ci ñu ñuul yonente bi moo tax mu ne inna allaha qasama baynakum axlaaqakum kama qasama baynakum arzaqakum nee na yàlla ni mu séddalee wërsëg yi gis koo xam ne tuuti lay am nekk faqir gis koo xam ne doo am dara nekk miskin gis koo xam ne sëri lay doon am lu dul jeex noonu la séddilee jikko yi nee na ñii dañuy am jikko ju xaw a kawe tuuti ñii am jikko ju digg doomu ñii am jikko ju suufe yoo xam ne kenn du mën a jaxasoo ak ñoom loolu lépp nag boo xam ne jëf-jëfi sunu borom la da nga xam na cey cay mën a doxi noonu lañ wutee ci pas yi nag daanaka kenn ku ne ak sa pas-pasu bopp waaye nag dafa am koo xam ne mooy royukaay bu mag bi sunu borom ne ñu man ngeen a jële ci moom roy gu rafet laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana moom moo ñu dugal ci tomb ñaareel bi kon yonent bi mooy royukaay bi ñu xool moom nan la daa jëflanteeg ñi mu wuuteel pas-pas ña ci jiitu mooy yéefar yi yéefar yi ak li ñu ko daan tooñ tooñ gu mett yëpp dafa xéroon ci ñu gindi ko gëm yàlla da cee xéroon moom yonent bi gis nga ci muqaddamatul xidma sëñ Tuubaa boole na ci ci ay turam alxarisi alal iman yonent bi dafa xëroon ci nit ñëpp dugg ci gëm yàlla sunu borom dem na ba naan ko loo xër xër xër nag ñu ëpp ci nit ñi moom mënuñoo gëm loolu yàlla dogal wa maa aktaru naasi walaw xarasta bi muminin gis nga ba mu demee Taif ba mu jaaxle ci màkk ba dem Taif ngir wuti fa wàll ci njaal benn woote bi ñu ñu ñu ñu ko ak lu méttee métti boole koog ñi ñu dese ñi ñu ñu ñu jiital ko di ko yuuxoo di ko sànni doj ba nàccal ab tànkam sallallahu alayhi wa sallam bam xare Uhud ba mu jógee Màkka ba gàddaay teewut dañu dañ ko faa fekk di xareek moom xare boobu gaañ nañ ko ba xaañ ko cib ji ba damm bëñëm waaye ànd ak loolu lépp day wax allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun na nga leen gindi rek wan leenu yoon bu ñu xamee rek danañ danañ la gëm dugg ci dugg ci lislaam moo tax ba mu ba ba lépp jallee ba mu ñëw Makka fatxu Makka ah, yor doole ji jeex mënoon leen a faagagal ci benn bis teewul def na leen idhabu fa antum tulaqa jéggal man gën a dem boyal na leen maanaam jéggal na leen ñooñu mooy noonu la daa jëflanteeg yéefar yi nga xam ne sax gëmuñ yàlla te yemuñ ci ñàkk gëm waaye di ko tooñ di ci boole tooñ ci wàllu seeni làmmiñ di ko tooñ ci seeni ci jëmmam noonu laa jëflanteeg yahuud yi yonent bi àggoon na ci rafetal ci jëfalante ki mu bokkalul gisin ba foo xam ne yéefar yi dañ fa dajeeg yahud yi sax ahlul kitaab maanaam xaw a nuróoleeg yahud yi moo koy gënal nuróoleeg nuróoleeg yéefar yi ci ludul nag àtte bu ca wàcc jëli ko ca loola ludul loolu gis nga ba ñu rayee abdullahi ibnu sahl dib yahud gëmur yàlla nag ni ñu doye woon waar jullit ba ko nga xam ne tegu ko ci ci ci ci àq yonent bi da koo joxal da koo joxeel diye diye la ko joxeel fay ngir rek ak rafetalam am na jullit boo xam dafa masa dafa masa xam nga càggante moom yàgg na fi dafa masa jël alali jàmbur ba mu ko jëlee làq ko ci kër gu yahud kër gu tuumal ko yonent bi ci digg nit ñi la woo jullit bi àtte ko jox yahud bi dëgg alquran sax wàcc ca wàcc ca indi ca aaya ba ci yow ma yakisib xatiatan aw isman summa yarma bihi bari'an faqad ihtamala buhtaanan wa isman mubina yahuud yi ak ak nañu doy waar sunu borom ne ko yahuud yi daanaka ñu gën a noonoo jullit ñi la tajidanna ashadda annaasi adawatan lilladina amanu lyahud kon yahuud yi ñu doyoon waar lañ ànd ak loolu lépp yonente bi jëflante boobu la doon jëflante ak ñoom gis nga yahud ba ko fekkoon ci diggu mbooloo ma poñe ko ne ko ma sama bor bi ma ameel ci Seydina Omar ci ci ni mu ni mu ñàkke woon caaxaar ni mu jàmbaare woon jóg bëgg a dal ci kawam dal ci kaw yahud bi yonent bi tere ko ne ko déet Omar Omar mur nii bi xosn murhu bi xosni talab wa mur nii bi xosni ada ne ko digal ko mu rafetal nu muy fayoo da nga digal ma ma rafetal nu may fayee ma nit noonu la yonent bi jikko jooju la amee woon waaye ta ñàkk ndax wa innaka la ala xuluqin azim kon kenn ko ne bala ngaa mën a jëflante ki nga wuuteel faw nga jëkk rafetal sa jikko ndax jikko yi rek ci lañuy ñuy jëflante nit ki nit jikkoom mel rek ni la muamalam di mel am na ci yahudi koo xam ne dafa nekkoon ci biir këram di ko liggéeyal gone la bi mu tawatee bi dafa jël tànkam ba amee ay fan gisu ko dem seeti ko ngir ngir ngir ngir seeti ko seeti ko tawat woo ko ci lislaam baay bi jox ko ndigal mu dugg ci lislaam kon jikkoom jooju mu amoon mën a rafetal digganteem ak ñi mu wuuteel sax jural na ko résultat ndax am na ñoo xam ne jikkoom jooju moo leen dugal moo tax ñu tuub bi mu gàddaayee Màkka ñëw Madina fekk na fa ci giirug yahut lu baree bari ñaar fukki giir ak nangam fekk na ko fa waaye dafa dafa dafa bind lu leer naññ loo xam ne dañ cay jaar daf na lil yahudi diinuhum walil muslimina diinuhum mawalihim wa anfusuhum illa ma zalama sax ne jullit ñi niñ mën a dunde seen diine ci jàmm nañ bàyyi yahudi ñi dunde noonu seen diina ci jàmm seen alal julli léegi seen i bakkan niñ koy sàmmee ni lañ koy sàmmee la yahudi ku dul na ku jalgati ku jalgati moom ku jalgati moom yaa tooñ yaa tooñ sa bopp ku xéeroon ci loolu lépp nag ànd ak loolu lépp lu ne nañ ko ko yàq yahudi yi di ko ko teg di ko yàq di ko wax ci àq sunu borom yi tabaraka taala di ko wax ci àq yonente ko jiitu woon di ko wax ci alquran sunu borom wax na ko la wala tasmaunna min alladina utul kitaba wa min alladina ashraku min min alladina utul min qablikum wa min alladina ashraku adan kathiran nee na ñi gëmul yàlla dangeen ngeen dégg ci ñoom lor waxi lor dañoo wax ne ci arab adan lor jooju li muy firi mooy lori làmmiñ lori làmmiñ moom da ngeen dégg ci ñoom loru làmmiñ ju bare bari ñu koy teg ci seen kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ñu ko daa jalgatee ñoom yahudi nga xam léeg-léeg ñu fekk mu toog sax buñ koy nuyu assaam assaam lañ koy wax assaam aleyk mooy maanaam rek yàlla na nga dee waaye ànd ak loolu lépp waaleykum rek lay wax yam ci bu saxaaba yi bëggee wax sax mu mu mu mu tëral leen ci noonu la dundeek ñoom ci jàmm ak li muy wuute wuute ak ñoom jàmm jooyu la dundeek ñoom ba ñoom nag ñoo xotti nag war ma yàlla mu soo ko dal ci seen kaw génn leen ma madina mooy benn jullit bu jigéen bu ñëwoon ci marché ba ñu ñu ñu wuññi awraam futti ko ray jullit bu góor ci la yonent bi dala dala dala ci seen kaw waaye noonu mu doon jëflanteeg yahuud yi ni la doon jëflanteeg nasaraan yi nga xam ne suñu borom nee na ñoo xaw a gën a jege cofeel ci jullit ñi tuuti wala tajid na aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qaalu inna nasaara waaye moo tax daana mu daarante ak ñoom ba àgg ci atte bu bu dal ci seen kaw ñoom nasaara moo leen atte sax daana leen atte ci seen diine ñoom ci seen diine na ko seen diine tërale daana masla ñoom ba ba jëflante ak ñoom gis nga délégation ahlu najaraan boobu ñëwoon Madina yonent bi dugg ak ñoom ci jàkka ji waxtaan ak ñoom ba waxtu julli jot saxaaba yi bëgg ñu génn yonent bi te tere leen ne leen bàyyi leen leen ñu toog nga xam ne fa lañ toog mu julli waxtu wi ca jàkka ja ba àggal noonu la yonente bi kon sallallahu alayhi wa sallam daa jëflanteeg ñi mu bokkalul gisin bu ko defee nag te moom nag mooy royukaay bi na ma ko waxee léegi sëñ Tuubaa yonente bi mooy royukaayam sallallahu taala alayhi wa sallam mooy royukaayam ci lépp gis nga ca xas yi rek muqaddamatul xidma nga xam ne ndaanaka mooy njaalbeenuk liggéey bi tàmbali bi wax na ca biir engagement yam doon jël wax na boroom ne ko bi anni jaaltuhu l yawma wa gadan ngi fas ne jaayante ne def naa ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ak ëllëg muy sama wasila waaye di sama di sama qudwa kon yonent bi la fan roy bu fekkee day aajo ma ma delloo la ñëw ci tomb ñaar wala ñu mënas na wéy si kon Sëñ Tuubaa dafa nekkoon liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa te la ñuy jëkk a liggéey la yonente bi mooy taxawal sunnaam taxawal sunnaam loolu ci lan moo tax ba muy ba muy wax engagement yim jël at mi mu koy xaaj ñaari xaaj xaaj bi mu ko ci jul muy julli ci moom xaaj bi muy tagg ci mu koy mu ko ci tagg mu di tàmbalee muharram ba jumaada thaniya rajab ba ba ba ba xijja da caa teg ànd di ko roy nag salaatu sitta bi matxi sitta tatihi batta maa tisaa kon roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liggéey bi ci liggéey bi la bokk ci gis nga nañ jëkke digganteem ak tubaab yi noonu yu mag yooyu nga xam ne fu ne samay noon rek daanaka ñoom la ci ñoom la ci jublu dama jëlale lor yi jëmm yi ñu ko doon teg waaye tuuma li ma loon wax léegi ci yonent bi digganteem ak yéefar yi tuuma daanaka cis gor moo gën a metti sax fitnay jëmm tuuma junee teg nañ ko ko gis nga sañ mat la nat la na ci irwaane ba mu demee fañ ko doon àttee dañ koy tuddal ay mbir yu yuñ naan ko yaa ko def yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam di tudd mbir yoo xam nee na du du du du jóge sax ci ko amu xel ko amu xel dong nitu kese ko amu xel rek jomb naa jëf loo loola fadlan am mithli rawatina ku mel ne Sëñ Tuubaa nag kon waaye ànd ak loolu lépp bi mu ànd ñoom ba dem di jihaad jihaad yoo xam ne ndigalul yàlla la moom nag jihaadam xalimaam la doon jihaadi bind waaye ni jaay si def def noon yi noonu la xalimam daan def ci noon yi am na am na xasida jihaad yoo xam ne noonu la daal lore noon waaye loolu sax ne da ko mujj bàyyi ngir jéggal ngir ngir rafetal gu ngi rafetal diggante seen diggante moom wax na ci xasida yi ne law annani lam atruki alkitaaba mujahidan biha dawil itaaba lamaata bil wabaa'i kullu kaafiri in lam yatuubu lil ilaahi alxaafiri nee na mi muy bind di ko jihaade bu ma ko bàyyiwul woon noonu yëpp ay faatu ci mbas noonu yëpp ay faatu mu ne waaye dama laakin afawtu mu ne waaye dama leen a jéggeen ngir yàlla dama leen jéggeen ngir yàlla laakin afawtu an jamii annaasi li wajhi rabbin muhlikin xannaasi kon kon loolu gis nga daarul man naan xew-xew ba fa amoon tooñ gu mett gañu ko tooñoon ñëw visité këram wax na daa tuumaal ko ne day da jënd ay gannaay tuumaal ko ñëw dajji kër gi jaxase bagage loolu sax ba yi ñëw mel na ne fekk na ko génn moom ndax ñetti fan lu jiitu ñu ñëw fekk na am na ndigalu moom ba génn wuti ndar ñoom ñu juyoo moom ñëw ñëw ci këru daarul mën naan gi nga am na ca am na ca gaal goo xam ne sax am na ca tooñkat koo xam ne moom visité kër ga dafa bënn gaal gi ci xaajam gaal gi mi ngi woon fii bagage Sëñ Tuubaa nag gaal ga yàgg na fa boo ñëwee da gis bën bën bi eh, teg naa ci sama bët léegi mel na defaraat nañ ko sax ngir ngir ngir waaye yàgg na fa lu yàgg na fa waaye gis nga tubaab yi dañoo yebal benn agent secret mu ñëw ci sëñ Tuubaa fekk ko daal lu mën naan lu jiitu muy génn ba mu ñëwee nag mm, wane ne daal jébbalu si daa jébbalu si nga xam ne bëgg bëgg nëbbu boppam bañ bañ a xam ne ca tubaab yi la jógee yëkkati lu mat cinquante franc jox ko sëñ Tuubaa addiya te jataay bi sëñ bi nanguwuta laal xaalis bi ka dendoon ak moom la ko jox ne ko demal ca buntu ba ñu ko aajowoo nga fa nga séddale leen ko dal di wax waaja nag ne ko nun nag ku ñëw jébbalu jox ñu boppam faaw nga jëfe ndigalul di bàyyi ay tere wala ciy caaxaan rek nga nekk ne ko man nag na ngeen xam ne dama fasanteeg yàlla sama borom ci ci kaw jàmm laay dox ak ci kóolute jàmm ak kóolute rek sécurité ci lay dox ne ko moo tax sañu maa rey sax jiit sañu maa rey jaan sañu maa rey dara lu am ndax duma ma firi li ma fasanteeg sama borom moo tax duma ma denc ay ngànnaay lu jiitu muy wax dara rek loolu la ko wax moo daal di xam ne kon moom xam na fa mu jógee la ko la ko ko andi waaye yemul ci loolu dafa digal taalibe bi muy génn leen bu noonu yi ñëwee dara lu dul jàmm leen ko seq ak ñoom moo tax am na ci taalibe ñoo xam ne ba noonu ñëwee fañ fañ yeewu seeni fas sax dañuy wutim ñaat di leen ko jox di xontu seeni fas te boobu ñu ci kër gi di tooñ sëñ Tuubaa tooñ ko metti googu waaye noonu la jëflanteeg ñoom yemul ci loolu mu taalif xasida génn xasida rabbi ma yashrahu tënke ko rahmaanu rahim di ca ñaanal yërmande julli ji waaye mbindeef yëpp wal tarhamil xalqa yaa man jaddahum bada nga xam ne ñoom noonu yi ñëw sax ñu ngi ci biir ñaan googu ne ko na nga yërëm mbindeef yow mi nga xam ne yaa bind seen maam koo sos maamam doo moroomam yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia yaa haadiyan radaa mi moom nguur gi te jompanteeg di fayu na nga yërëm mboolem mbindeef yi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñi tooñ si yërmande jooju la leen li leen yéene ba leen koy ba leen koy ñaanal gis nga bañ ko yóbbee ca tukki ba delloosi ko ak coono bu metti bépp dafa ci jolox jolof fa ñëwee dafa bind wane na jéggal na leen parce que rek muqaddamat afawtu an al adaayi turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfahu jéggal naa noon yëpp ngir jëmi yàlla may dox sama diggante ak ñoom yéene jooju yéenew yiw jooju sëñ wa amoon ci mboole mbindeef moom la digle moom la digle taalibe yëpp amee ëmbal noonu aw yiw mbindeefi yàlla yëpp ndax ko bind kunu muhibbina kunu kunu muhibbina alxuwara li jamii xalq ilahi ilahina kunu muhibbina alxuwara li jamii xalq ilahina almuqaddimi albadi nee na na nga yéene aw yiw bëggal ko mboolem mbindeefi yàlla yi mbindeefi yàlla yëpp kon loolu mu nekkoon rek taalibe yi ak ñi dégg ñu déggalam noonu mu jëflanteeg tubaab yi nag nu ko raw nag la jëflanteeg jullit yi nga xam ne buñ ne nee jullit yi rek mooy ñi mu bokkalul woon gisin ndax sëñ Tuubaa moom jamonoom ñi mu bokkal gisin boobu mooy murid te murid mooy seen sëriñ amu ñoo moom loolu déglu ndigalam bàyyi tereem kon bu ñu naan jëflante mu rafet ak jullit ñi ñañ ca jublu mooy ñi mu bokkalul woon aw gisin dafa jëkk ne moom mboolem ñi yàlla di jullit rafetal seen lislaam jullit yëpp mu ne samay soppe lañ loolu la bind man amanu wa aslamu wa ahsanu ahibati fi xayr rabbin yuxsinu loolu Sëñ Tuubaa wax daal di bind ñaan yàlla ñaan yàlla gis nga abyaar yooyu ci ci ci matlabu shifaa yi wajal qulubana ala tawaddudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaagudin wala tanaafuri sunu borom na nga def sunuy xol sunuy xol nun julit ñi ñu soppante waaye bu ñu xëccoo bu ñu añaanante bu ñu xuloo bu ñu wanante gannaaw bu ñu merante bu ñu foñante nañ nañ nañ seq jàmm nun ñëpp bëggante jàmm yéenante jàmm kenn ku ne la yéen nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom teg ca xata nasira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin loolu mooy tax ñu mën a doon ay jullit yu ragal yàlla waaye doon ñu gëm yàlla itam yonent yi balaa ngaa mën a gëm yàlla dëgg da ngay yéene sa mbokkum jullit di nga yéene sa bopp yonent bi waxoon na ko laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsi sa ngëm du mat mukk seen ngëm du mat lu dul bu li ngeen yéene seen bopp rek ngeen di yéene seen bokki jullit kon bayit ñaari bayit yi mu ñaan bu nangoo mooy tax ñu mën a nekk ay jullit yu wóor ni ko yonent bi waxee ñu seen ngëm yàlla mat moo tax mu teg ce xatta nasira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin ñaan boroom ne ko na nga ñu xiir na nga ñu xiir ci ñu bëgg jullit yëpp ngir sa jëmm te xiir leen ci ñu bëgg ñu wa axrina bi xubbihim li wajhika wa axrihim bi xubbina fa nasluka jëfalante bu rafet boobu ak noonu mu meloon moom sëñ Tuubaa moo taxoon jullit yëpp fu ne lañ daa jógee di ko siyaare si rawatina bi mu nekkee njaareem nga xam ne moom fa la amee istiqraar bu bu ki dañ fa mbooloo dañ fa daan ñëw ci biir réew mi lu dul biir réew mi di ko siyaare si moom sëñ Tuubaa ñi bokk ci tariqa yëpp ak ñi bokkul ci benn tariqa naa ci tudd tuuti rek ñi bokk ci alqadiriya gis nga ibnul arabi li ak mbokkam sax yunus li sax moom wane woon na noonu sëñ tuba mbooloo mi noonu ñu daa bare ci sëñ bi ñu naan ko yaa xillu kam zaara hada al baaba min maliki wa min wazirin wa min jinnin wa min malak kenn xamul nu mu toll mbooloo mi nga xam ne ñëw nañu di di di la siyaar si di di fëgg say bunt kenn xamul nu ñu toll sëriñ ak tijaan yi daawuñ jóg njaarim sëriñ tijaan yi ah, sëñ góor góor góor saane ñang ñu bari dégg nañ ko ci kilifa yi tijaan yi gën a mag ci réew mi la bokk fekk si woon na sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa lu jiitul sax xaadir yi ma doon wax gis nga Sidi Roya Kunta Sidi Roya Kunta ku jaxasoo woon ak sëñ Tuubaa lool tari xaadir yi la bokk jaxasoo gi tax na sax sëñ Tuubaa tudde doom ab jigéenam rakkam soxna Mariama Kunta mi bokk ak sëñ Fàllu mbokkam la ko tudde ngir seen diggante loolu ak rafetal defe naa ne mënu koo féete kaw góor seen ñag ni ma la waxee ci bokki tijaan yi la bokk tijaan yi dañ daa sotti ko ci sëñ Tuubaa dafa ñëw lu baree bari kilifay tijaan yi sëñ Basiiru gis nga mu wax ci téere bi ne taalama arahum yanziluna inda wa yuwassiu alayhim wa yuhayiu lahum aljulusa tahira li yuaddu wadaifahum nee na bari na loolu ma leen daa gis ñoom sëriñ kilifay tijaan yooyu ñuy ñëw ci sëñ Tuubaa mu leen di wutal barab yu set wicc yu laab ñu fay mën a def seeni wasifa seen balaani wasifa loolu ci biir kër sëñ Tuubaa mu wutal leen barab bu ñuy laale seeni balaan di wasifa ci biir këram dafe na ak rafetal munta munta munta weesu loolu gis nga ki nga xam buñ tujjee tijaan yee ci réew mi xel yi dem ci moom muy Seydi El Hadji Malick gis nga ci buñ jàllale gi mbindum sëñ Mbaye Lamine ak sëñ sëñ sëñ Bachirou dañuy gis jëfalante bu rafet bi sëñ Touba daa jëfalante moom moom it ma ko koy delloo gis nga ci Irwa sëñ Mbaye Lamine nee na am na ku ñuy wax Mouhamad Touba dafa am bis mu jaar Tiwaawan jëm si jëm si ci sëñ Touba jëm si ci sëñ Touba bi mu ñëwee nee na Alhaji Malick ne ko danaa la yóbbante boo demee ne ko fanaan ba ñu fanaanoon ca Ndar moom dong ak yàlla la ñu fasante woon ne ko maa nga ca ba tey nee na bi ñu wax ko sëñ bi sëñ bi waxu ko ba tey lu mu doon weesu wut di raay bopp ak di muñ xam ne kon seq nañu loo xam ne sax nit ñi nit ñi xamuñu lu mu doon sëñ Bachir noonu la seere diggante laaj Hadj Malick sëñ Touba moom dafa jëkk a tagg El Hadj Malick loolu it ñu war cee jàngatee lu am solo daf ko ci biir mi nan da ko jëkk a tagg tagg yu yu rëy rëy ne as sunniyul wari ahadu aimmatil muslimin sunni bu mag ba ko sàmm kenn ci kilifa jullit ñi ne soog ne ndaw yi ndaw yi nga xam ne daa dox seen diggante mook sëñ bi daawul daawul dafa saxoon dafa daawul dakk benn yoon nee na bi bi amul dara looy xew ci sëñ bi lu am solo lu dul bu dana yónnee ci alaaj maalik yëgal ko alaaj maalik gi noonu moom itam noonu la ko noonu la ko sëñ bi waxee nee na sëñ bi mas na koo fekk njaar ne dem fa nee na ba mu koy gunge alaaj maalik dafa war génn lu sore sore ngir gunge ngir gunge sëñ Tuubaa mu ne dañ daan joxante hadiya lu bari bi sëñ Tuubaa jógee ci géej gi ba ñëw moom nee na loolu dëkkut benn yoon ba gis nga alxaaji Malik téere yooyu mu ko joxoon boole ko ñaari bayit yooyu hadiyatun mujibu hajtilaabu mahabbatin ya ayuha alxabaabu adaama rabbuna lana xabla alwisaal wa kafana charr alladi aada wasaal hadiya ji ma jox alxaaji Malik ne ko hadiya ji ma la jox jubluuma ci ludul ak cofeel dox sama diggante moom cofeel googu yàlla na ko yàlla saxal bu mu jokkoo gi dox suñu diggante yàlla na ko yàlla saxal te fegal ñu noon buy buy buy noonoo ko jalga ka tooñ ka songe sëñ Tuubaa ne ko jazakumu xayral jazal wahaabu wa fi safal widaadi la tartaabu ne ko ne ko cofeel googu moom yàlla la yàlla fay waaye cofeel googu moom bul sikki sàkkane cofeel gu sell ëmbal nañ la ko na ko fakay fala wal mustafal mujaabu imaamuna moo luy tee sax mu am cofeel googu te ñun ñëpp Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ci sunu kanam kon defe naa jullit yi war nañoo déggee ci loolu kon lañ moo war a dox seen diggante lu dul cofeel lu dul cofeel te ñu bokk li ñu bokk loolu la sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wax kon noonu la sëñ Bachir waxee seen diggante wa wax na man ci bopp bopp sëñ na man saa bopp fekk naa ko ci ñaari dëkk yi ay yoon muy Ndar ak Tiwaawan waaye fu ne daf may teral gaayatal ikram noonu la ko waxee fa teral yem laaj mal dama damay teral di laaj sëñ bi di ma li ma di ma laaj bokk yi di ma bellil xaar kanamam ni ko nit ñu baax ñi def defe nee na nee na am na bis nee na moom sëñ Tuubaa sëñ Bachir ne dégg naa ñu ne Alaaji Maalik na bis mu toog ci jataay ñu tudd sëñ Tuubaa mu ne moom dey melo wii mu yor rek moom la ma samel amul ku ne ci noonu rek am na bis nga def looy tuub ba mu des moom moom melaw wii mol ci la màgge ci la màggate nashaa sabiyan wa rajulan wa shaykha wax na itam wax na itam ne am na bis Alaaji Maalik seedeel Sëñ Tuubaa lu yéeme la mu ne mas naa wax ne bu xamul woon ci bu amul woon ci Sëñ Tuubaa benn dalil lan lu ko leer amu ko ci lu dul sëñ Mbàkke Buso mi bokk ci taalibeem rek ak li mu xam ci sëñ Mbàkke Buso ci ci ci ci xam-xam ci diine ci maandu cim xel ci laabire jullit ñi bu nangoo topp ci Sëñ Tuubaa te dara Sëñ Tuubaa umb ko moom moom rek ci wetu sëñ Tuubaa topp ko mu ne laka faahu taski kon lool doy na sëñ Tuubaa ak mbaax defe naa loolu fii loolu seen diggante kon noonu la noonu la noonu la noonu la woon defe naa kon mel na mi ngi mi ngi jege ñu tënk ñëpp daa ñëw ci sëñ Tuubaa jullit yëpp gis nga sëñ Abdou Samad moom sëñ Abdul Qadir am na xasida gum bind maa ngi cay wane ni ni ni ni ni borom xam-xam yeeg jullit yëpp daa baagante ci sëñ bi mu ne in gaadara al bayta faqihun zairu makanahu ata adimun shaa'iru nee na borom xam-xamu fiq borom xam-xamu faqih bu ñëwee ci sëñ Tuubaa ba dem day daal di ñëw wuutu ko ca palace ba mu nekkoon koo xam ne ku adib la bu mën a way borom xam-xam bu mën a way moo koy wuutu noonu la bu defee Cheikh Sidiya Baba moom doon kilifa xaadir ku ne xam na seen diggante moom xaritu sëñ Tuubaa la woon sëñ Tuubaa ci mën a rafetalam Cheikh Sidiya am na bis boo xam dafa jógee gànnaar ñëw ndar ndar rek la ñëw ngir ay yitte sëñ bi sëñ Modou Moustapha la yebal boole kook ab délégation ñëw fekki ko ndar ngir nuyoog moom nuyoog moom masla ak moom ngir rafetalam defoon na ca ah, bayit yu am solo ahlan bi wafdin jaa min jaa min jaarimi wa karamatan li qudumihi min xaalimi sax si di moo way loolu wal mustafa in shabahat afaaluhu afaala walidihi fa laysa bi zalimi loolu ci ci délégation fekk ko ndar ci la ko ci la ko waxe woon waa Madina sax xam nga ne ñëwoon nañ yónnee woon nañu njaareem ci Sëñ Tuubaa bañ fa yónnee dañ ko woon dañ ko wax sag mbaax sag mbaax sax fekk ñëw ñëw na ba Madina sag mbaax ñu ngi ko tàmbale yaa xaadimul muxtaari man asraruhu jallat an taadaadi wa tibyaani xallat makaarimukum bi tay bi turbati taybatin fatatayabat fihata bi ataaika alhattaani loolu waa Madina ñoo ko ñoo ko Yusuf Ismail Nabahani Yusufu Nabahani nga xam ne dëkkut sax bokkut sax ci ci waa réew mi Liban la dëkk sëñ Tuubaa jël na ay teraanga yónnee ko fa mu nekkoon te fekk mu soxla woon ko lool ci la defoon xasida gu yéeme googu in numruun faatahul muxtaaru o mudarin wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuunu ku sëñ Tuubaa faat ku yonent bi faat sëñ Tuubaa raw la daal neexoo dimbali moom mooy gëmoo yonent bi sëñ Tuubaa ñëwee it topp ko ak ñi nga xam ne sax bokkuñ ci waa tasawuf ñu bokkul ci benn tariqa gëmuñ tasawuf noonu lañ ambale woon sëñ Tuubaa aw yow ngir rafetal gumu bu mu daa rafetal jëm ci ñoom am na ma am na yoonu ma ne woon gànnaar am na naar moo fa dajel cero mi ngi naan ma fii moom ñëpp nangul sëñ Tuubaa ñiy dund tariqaak ñiy dundu ñi ko dundutëg ñiy dund xam-xamu keseek sëñ Tuubaa mooy kenn koo xam ne moom mënees na nga xam ne muttafaqun alayhi la kenn kenn kenn kenn weddiwu ko fii ci fii ci gànnaar loolu mu nekkoon nag li la ni la moom la dénkaane murid yëpp tënku ci moo tax mu ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa kuy génn ci gémmiñam laa ilaha illallah na ngeen ko def na seen bopp leen ko noonu yii di xew muy attaques yi ñuy ñuy faral degg dégg ci réseaux sociaux yi di ŋàññ yoon wi di ŋàññ sëriñ beeg sëriñ si sëñ Tuubaa lam ca digle woon mooy nga wan leen gannaaw nekk ci lim la nekk loo daf ne waafu an alladi jana lil xilmi wajtahidan na fi iltimaasi l nee na képp kuy tooñ na nga ko na ko na ko na nga baal jëmee ko jëmee ci jëflanteeg moom cig lawet yow daal sa yitte mooy nanga nga sàkku ci xam-xam sàkku xam ba xam li nga nekk lu mu doon daal moo am solo ta ta ta nekk ca waaye nanga nga na na nga mu ne wasbir ani sabbi wala tujib ahad wa kun kama qaala al adibu wala qad ne na muñ ay ŋàññi saaga yeeg yëpp na nga ko muñ bul tontu kenn wala suñ ci wasantane woon bu ci tontu kenn maanaam bu ko tontu lim la jox muy saaga yi bu ko delloo mukk mu ne melal ne adib ba la mu waxoon rek wala qad amurru ala laimi yasubbuni maanaam danaa romb ku ku ñàkk solo mu may ŋàññ di ma saaga waaye dama koy dëdd woon gannaaw mel ne waxuma jàpp ne sax ne rek xëy na ki waxut ak man moo tax Sëñ Tuubaa teg ci ne in ladagatka aqrabul xisaami araqiha bil afwi wassalaami mu ne jiiti jiiti xuloo ak ŋàññante ak dàggasante bu na nga ko mocce jàmm yow ak ak ak ak salaam maanaam nanga nga na bale rek yow daal ku mën a indi jàmm ku mën a indi lu dul jàmm na fekk jàmm idfa billati hiya ahsan loolu alquran moo ko santaane waxtu wu ne rek na ngay joxe lu rafet yow gis nga ñaan sëñ Tuubaa ni mu noonu mu daa jëflante ni la yéene woon jullit yëpp jàmm gis nga ci xasaayid yi doo jeex muy ñaanal jullit yi ñaanal leen hidaaya gindiku te gindiku bu amee rek nit ñi mucc wajaal jamia al muminina fi lhuda wal muminaati summa aafihim gada gis nga mu leen di ñaanal jàmm ba àgg ci li leen layal xasida matlabu shifa gis nga mu leen layal fa innahum wa in asawka yaa ahad li gaflatin lam yushriku bika ahad buñ la mooy dañoo sàggan waaye bokkaale wuñ la kenn loolu itam da nga ci jéggéen dégg de nit ki bu waxee loo jàpp ne waru koo wax wala mu def ko it war nga ko mën a dogal ngant xam na càggante la waaye yàlla moom ñëpp mën koo gëm te wéetal ko ñaanal na leen lépp lu yibu àdduna ak yiw alaxira ba ci wérug yaram na xasida goo xam ne julit yëpp la ko ca ñaanal xok ummasal Mustafa may muy xasida yaa rabbi may wax ci biir wal tasrif daa an marad al jamii bihi wasrif lahum mujibati al amri wal bushari xok ummatal Mustafa an kulli mafsadatin loolu lu ne lu ne ñaanal leen ko kon daal buñ doon tëj dañoo war a wax dañuy wax ne dañoo war a xajoo xajoo ci suñ diggante maanaam yéefar yi gis nga sunu boroom yéefar yi sax dafa santaanañu maslaak ñoom buñ ñu xeexut laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diirikum wa an tabarruhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul yuhibbul muqsitin yàlla terewu leen ngeen maslaak yéefar yi nga xam ne tooñuñ leen génn wuñ leen seeni kër te tooñuñ leen maanaam ngeen maslaak ñoom ginnaaw yéefar bi la lay sant loolu waxuma la bi nga xam ne yéen a bokk yéen a bokk pas day mel na sunu borom day bëgg li sëñ Tuubaa wax ci ci mbindam waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa istishaad ba mu doon def ci naaju naga nga sàmm àq yàlla ci mbindeef yi sunu borom day bëgg ñuy sàmm àqam ci mbindeef yëpp moo tax bëggul ku tooñ ku tooñ ku kenn gis nga ca xare Uhud bi ma la nattali léegi yonent bi tooñ gu rëy gañ ko fa tooñ ba saxaaba ba moom sax ba ak saxaaba yi bañ bëggee di di di tëkku sunu borom daf ne wa a aaqabtum fa aaqibu mitli ma aaqibtum bi wala in sabartum la huwa xayrun lissabirin bu ngeen dee fayu nag yem leen ci lu toll ne li leen tooñ rek te bu ngeen mënee bañ fayu moo gën nga xam ne kon sunu borom loolu la loolu la loolu la bëgg maanaam euh, tom mujj bi kon ci tëj gi mooy sabab lan moo indi teqalikoo gi teqalikoo gi bar na ci loo xam ne maanaam ñàkk a ñàkk aaya alquran ju ñëw déggoo ko na nga ko war a dégg wala xadis boo déggul na ko war a dégg am lu mel ne fa yonent bi wax ne iftaraqatil yahudu ala ixda wa sabina firqa waftaraqatil nasara ala thnatayni wa sabina firqa daat ne maanaam yahud yi teqalikoo nañ lu mat juróom-ñaar fukki kuréel ak benn nasara yi lu mat juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar sama xeet wi dinañ tàqalikoo lu mat ñaar fukki juróom ñaar kuréel ak ñett mu teg nag kulluha fi naari illa waxida ñoom ñëpp sawar la bu budul kenn bañ ne ko ku doon yow yonentu bi def ne man ala mithli ma ana fihi wa ashaabi waaw comme yonente bi li mu waxoon ne diine yëpp danañ tàqalikoo def ay kuréel mu ne bu boobaa nag benn na cay mucc ñu ne ko bu mu doon mu ne booy mooy ba nga xam ne ci li ma nekk maak maaki sami maak samay saxaaba ci lañ ne ñu ne loolu déggin wi am nañu ko danga xam ne déggin nañ koy déggee ne jullit ñi jullit ñi la bëgg a wax ne dañ taqalikoo lislaam kenn ku ne ne fenn am na borom xam yoo xam ne ne dégg nañ ci war a dégg mooy xeet wam doon wax ne ummati xeet wam doon dunde rek la jublu wax nation ba nga xam ne ñëpp nga ci biir lam na itam kay mucc mooy kana ca la ma nekk maak samay saxaaba mu ne kooku mooy kana ca lislaam ndax lislaam la nekkoon kon dañoo war am dégginu jullit bi rek lay wax jullit bi rek lislaam ak kaca nekk mooy mucc booba déggin yooyu war nañ ko war nañ koy kon léeg-léeg wuutey déggin nag déggin bu baaxut danay danay sabab ay wuute bu ko defee waaye loolu lépp nag li ñu waroon a def mooy di di di di li ñuy wax tolérance rek di jéem a jéggalante yu baree bari ndax doomu dama dafa di dafa doyadi gis nga nit mën naa léeg-léeg mu wax wax joo xam ne wala mu def ko mën naa nuru buñ ko peesee ci charia mën naa nuru shirk bokkaale waaye loolu du yéeneem nit ñi am matuk leen leen na ñu ne ñu yemale ko fa mu war a yem mat googu ñi ko am bëriwul gëm yàlla gëm yonent bi gëm sëñ Tuubaa yàlla nga jox ko àqam dara doo ko ca fell yonent bi noonu la yàlla ci moom doo ci doo ca dolli dara doo ca wàññi dara sëñ Tuubaa noonu mat googu nag ñi ko am bëriwut loolu moo indi rek léeg-léeg waxee ñi ngay dégg boobaa nag dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy jëlale rek xam ne mat doomu aadama mat ak doomu aadama la gis nga sunu borom ci alquran am na fu ñu waxee saxaaba yi iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atayn wa in takum minkum mi'atun yaglibu alfan min alladina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun def na jullit ñi ñaar fukki ci yéen bu ñu amee pas-pas bu dëgër ñaar ñaar téeméer la ñuy jàmm la ñuy tolloo ci yéefar yi maanaam maanaam fukki jullit yu ne téeméeri yéefar waaye dafa dem ba ci mën a leen xam naa sax mënu leen a na ndax doyre de gina ci yéen allaana xafafa allahu ankum wa alima wa alima anna fikum duufan léegi fa in takum minkum miatun sabiratun yaxalibu miatayni wa in takum minkum miatun yaxalibu alfan yaxalibu alfayni wa in yakum minkum alfun yaxalibu alfayni bi idnillahi wallahu maa sabirin léegi naa leen ko waaye fala ndax xam naa ne ak doyee de ngi ci yéen saxaaba yi lay waxal de li ñuy am am pas-pas gëm yàlla moom leen waxee loolu xam nañ ne seen seen kattanu seen kattanu xel ak xalaat mënut a dëkk loolu fukki jullit yu ne mën a jàmmarloog téeméeri yéefar mu ne lay kon daan ko defal cinquante pour cent fukki jullit yu ne ñaar fukki lay tollool ci ci kattan kon li ma bëgg wax rek mooy ci misaal foofu mooy doyoo dëgg doomu adama dañ ko war a xam nit danay wax loo xam ne bu ko moo tax nga gis ci ñaan googu nga xam ne am nañu ne xadis la di ñaan sunu boroom yàlla na musal ci ma lay bokkaale ci lu ma xam waaye lu ca teg wa astaghfiruka mimma la a'lam kon nit ki mën naa waxi bokkaale wala mu def ko te fekk jublu ko ci ta du ko xam loolu lépp na la ca war mooy jég ñaanal ko njégalu yàlla te xam ne doole du maadama sëñ Abdul Qadir radiyallahu anhu am na bis euh, daayira bu koy siyaare daayira bu ñu xam la bu njiit la ràññiku lool ba muy wax ci discours ba dafa wax banaan bu soobee sëñ Tuubaa la ko daal di jubbanti fa sax ne ko bu soobee yàlla waaye taxul nag mu defe mu mu mu waxaat ko leen wan ko da ngay bokkaal waaye day xam ne rek doxali doomu aadama la loolu nag lañ war a ëmbalante ñun jullit yi ku wax luy nuru bokkaale itam bu ku ko mën a jubbanti nga jubbanti ko waaye bu mu tax nag nga ne nga nga nga nga takfiir ko wala nga nga féetale ko fenn loolu itam bokk na ci li ñu bu ko defee nag ñu xam ne li boole mu ëpp li ñu taqale benn borom ñoo ko bokk muy sunu borom war ko tabaaraka la bokk benn yonant bokk jenn alquran ji alquran amul amul jan benn rek la bokk benn xibla bokk julli juróom amul benn jullit boo am juróom benn waxtu wala juróom-ñaari waxtu ñun ñëpp juróomi waxtu yi lañ bokk kon laneen la ñu mën a tàqale nag defe naa lii moo ko moo ko ëpp solo kon nag nañ jéem a ànd ni ko sëñ Tuubaa santaane nekkoon ca ñu jéem a ne ca loolu ndax loolu mooy doole jullit suñu borom ne woon na bu ngeen xëccoo tàqalikoo rek ñàkk doole wala tanaaza'u fa tafshalu wa ta riihukum loolu la alquran wax kon li li ñuy wax boole xol yëpp di benn sunu borom da ko tudd xéewalug yàlla nee na seeni xol ànd xéewalug yàlla la udkuru ni'matallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi ni'matihi ixwanan kon xéewalug yàlla la boo booloo kon yàlla boole woon na ne bu yàgg bam ne innamal mu'minuna ixwa boole googu nag dara waju ko waru ko waru ko dindi te boole ak jullit ñeeg nekk benn ak yeneen te jàmm sécurité la ci jullit yëpp ndax bu la wóoree ne yow jullit bi am nga sa mbokk mu ne ci sa wet loo dugg mu fekk ci la ca fekk si la ca loolu sa xel day dal sa sa xol sedd kon loolu itam sécurité la ci mboolem jullit ñi ñun ñëpp daal nañ nañ tënku ci loolu ñoo ngi naan sunu borom defal na ci ndimbal bu baax di gën sant bu baax waa daayira Muqaddamatul Xidma ci seen taxawaay am solo xam ne murid yëpp ñi nga ànd ak ñoom ci seeni ci seeni xol ngir sellu barab beeg li nga xam ne munta ñàkk liggéey bu munta ñàkk la ni ma koy waxee liggéeyub jumaa ji ni mu doone woon farata sëñ Tuubaa digle ko ba murid yëpp na ca ni la saytu gi doone farata nga xam ne mënut a ñàkk kon nag yéen ñi ci nekk ñëpp ngeen ci nekkal noo ngi ñaan ngeen daje ceeg tawfeexi sëriñ bi ni mu dajeeg boroom man ni mu dabi daj ci liggéeyam ak tawfeexi boroomam ba ne raafaqtu fi xidmati tawfiqa xaaliqina wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon bu ko defee ñu euh, sant bu baax a baax sëriñ bi ci waxtaan wu am solo wi te tënku lool ndax ku nekk xam na ni nga ko euh, préparé bu gënoon a yaatu day day gën a am solo waaye alhamdulilahi rabbil alamin li muy gàtt-gàtt teewut génne nga ci ay euh, tomb yu yu am solo yoo xam ne nga xam ne mooy topp waxtaan wi bu boobaa dina mën a am euh, bunt yu mën a jaar ngir mën a gëstu kon euh, sëriñ bi euh, njëkk naa junj ne sabab bi tax wute bi am ci coobare yàlla la kon nit ki rek mënul xëy xëy rek bëgg ñépp ànd ak moom waaye yàlla la soob xeet wi yëpp di wuutee ndax moom moo wax ne walaw shaa rabbuka la jaala naas ummatan waxida wala sa na yasaaluna muxtalifiina wali saalika xalaqahum kon ngir loolu moo tax mu bind eh, jaam ñi xam ne ñëpp mënuñoo bokk ci wàllu xeet ci wàllu waxin làkk ci côté gisin ndax ku ci ne ak na la yàlla bindee hmm. bii ba day jëf jeexantal ci yow tabi'a ba bu ci nekk day am rôle bu muy def ci yow ba tey mu mel ne waxtaan wi euh, tomb bi boo ko xoolee day dëppoog loolu xadis bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne ittaqillaa xasuma kunt wa xaaliqi naasa bi xulqi xasana wat bin say ata xasanata tam xuuxa da nga ragal yàlla te jëflante nit ñi ci jikko yu rafet fexe ba taxaw tem ci jëf lu baax ndax waxtu wa jëfee lu baax say ñaawteef yëpp day dem waaye mu junj it sallallahu alayhi wa doon jëflanteeg yahud yi ba ci nasaraan yi nga xam ne ku ci nekk xaq ba nga xam ne moo moom la war a doxale ci sa diggante ak moom rek moom la euh, doxale xoolu ci saxaabe xoolu ci kenn koo xam ne jege nga ko walla nga euh, sori ko waaye xàq ba lay xool mu doxale ko seen diggante yéen ñaar atte ko waaye it na it Cheikhul Xadim ni mu daan euh, doxalee euh, euh, noonam yi ak jullit ñëpp la mu njëkk junj mooy roy gi mu doon roy sallallahu alayhi taxaw temm daan na ko jaar fi nga xam ne moom la daan jaar ngir moom mooy ab soppeem ngir moom mooy ab xaritam ngir moom mooy ab royukaayam waaye ak agsi ba ci liggéeyam bi nga xam ne moom la eh, tënk ci ay weer saalu sitta bi ma de sitta tati saay ni mu ko tënkee woon ba ci di ko ci roy jaamu yàlla liggéeyal jullit ñëpp ba àgg ci wax ne faraxtahu bi xidamin la saaniya lahu min al mm-hmm. loolu lépp ci xeetu royka la ak fa yéenee taxaw temm ngir euh, jaar fa mu jaar waaye it euh, Cheikhul Khadim ni mu jëflante woon ak noonu yi ci yoonam mu demee tukki géej ba ba ñibbisi ak fi mu nekkee euh, Mauritanie Thièyeen Jolof ba ni mu agsee njaareem na mu daan jëflante ak ñoom ci xam ne ay mbindeef lañ li ñuy nekk nekk noonam ay mbindeefa ay mbindeef yàlla lañ yoo xam ne yàlla moo leen boole ak ñoom ba jox ci misaal ci euh, ki nga xam ne daa jaasuus bi ñëwoon ci hmm. euh, daaru marnaan hmm. ak nam jëflanteeg moom am na ci koo xam ne xumaag euh, sëriñ Saïd Mbàkke di nettali di wax ne am na ci hmm. kuñ jabaloon mu yoroon jaasi ngir naaj waaw ah, ok ngir faagal sëñ bi loolee yëpp kon day tegtal ne sëñ bi daa jëflante woon ñoom xam ne yàlla moo leen bind hmm. waaye xam xam loolu yëpp xam na it ne eh, nasaraan yi hmm. am nañu caay-caay gu toll ni bu maslaa gi ëppee it mënees naa jaar ak ñoom foo xam ne lu neex boroomam hmm. moo tax muy wax ni lii chat bi an nii laa udaahinu musrika xalilan xabiban lilla si karramal jan ba kon moom daawul maslaa ak ñoom ci lépp loo xam ne daa dox ci fas yéene taxawal diine mu taxaw uh-huh. temm ba dëgër ba ñëpp mën caa jaar daw ci masla ak uh-huh. eh, noonu yi lislaam uh-huh. waaye ni daan jëflanteeg jullit ñi ba ak ji sax di digal ñi ko topp ñuy jëflante ak ñoom alxawaas mooy ñi nga xam ne eh, turux suufiyee ñi daan ñëw di siyaare ñëpp ba ci awaam ñi nga xam ne mooy ñëpp doomu aadama yi nga xam ne mhm. dañuy eh, nuru nuru ñu nekk ci zahir ñu naan eh, jëflante ak ñoom ci wàllu eh, di xool ci ñoom yàlla mi leen bind mhm. baag gi ci wax ne faqdim humu turan li wacci lay faqat bila mën nin ulaatana loolu rek doy na ci am misaal bi wane ne sëñ bi daawul sax xool ku bokk ci tarixa bi waaye li mu daan xool mooy mbindeef nga rek mhm. ku ci nekk war ngaa xool ci moom yàlla war nga koo mën a jariñ nga taxaw teem ngir def ko te yàlla rek tax baa gi ci di wax ne bëggal jullit bi ngir yàlla waaye na nga bañ euh, yéefar bi ngir mm-hmm. ngir yàlla kon loo ci def rek ne yàlla rek tax àgg mm-hmm. ci di leen ñaanal doy na sëkk xasida euh, matlabu sifaa yi ak euh, wakaana àqan doy na rabbi bi ma yasrax bu ci nekk boo ko jàngee yépp ay ñaan la yu muy defal jullit ñi di leen ci ñaanal yàlla tawfiq di leen ci ñaanal yàlla nooyu xol di ci ñaanal yàlla euh, ak njéggal mhm. waaye bu ñu ñëwee ci jeexantal bi euh, ñu gis ne wuute bi it sabab bi bokk na ca mooy jullit ñi ku ci nekk sa gisin mhm. day def jeexit ci yow mhm. ku te nekk it sa tabian day def jeexit ci yow ba ci sax boroom xam-xam yi da ngay gis ne kii day bëgg tasaamux lool hmm. waaye tabian maanaam xaala bi mu yore moo ko dul may ci loolu ba da gis sax gisin yi muy yore day metti ba hmm. day wuuteeg moroom ja waaye it bokk na ca it raaf gi jamono ji toll euh, nga xam ne kenn réetu sallallahu alayhi hmm. toppatu sax waroomi xam-xam yi kenn fexewuta sax xam seen i jaar-jaar loolu it bokk na ci jeexit di nga xamante ni muy indi wuute yi ak ñàkk a yittewoo dëgg dëggi xam-xam ak ñàkk xam lan mooy euh, ak wuute loolu rek bokk na ca la alimaam Saafi doon wax ne rëy sawaabun yaxtamilu xata wa rëyu xayri xataun yaxtamilu ala sawaab hmm. kon yooyu yëpp day tegtal ne wuute mënul ñàkk waaye waxtu wuute amee ñu xool nee si def ba mën a ànd ci jàmm ak ndax ñun ñëpp bokk ki ñu bëgg mooy yàlla mm-hmm. ñoo bokk ñu rey mu sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee ñu taxawlu foofu di jégalu bu baax di tey sant sëñ Abou Mbacke moom mi nga xam ne moo taxaw euh, waxtaan wi di fàttali ne ñoo ngi àndoon ak euh, MK ak ak Lamp ci seen émission man baaxul Muridiya di tub bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wal tudxili lmusliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadi lwafi wal tudxili lmusliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadi lwafi